sanga ma day jaayoo jaay murit bu jóg mu ne ko kaay tàggale koo ki laxasaay ak ite muy niru jigéen jigéen a bon ci am murit moo gën a bon ci am murit lépp lu bon ci am murit yow bu ko séenu bu ku jox jigéenam la mu laaj xañ sëriñam la mu ko laaj ku xañ sëriñ nag la mu laaj rëccu nga gaa leen ku jox jigéenam la mu laaj xañ sëriñam la mu ko laaj sëriñ nag la mu laaj rëccu nga gaa yi dégg leen murit da daa wut sëriñam tey daw lu dul ab sëriñam ba yàlla jox ko sëriñam ak njariñam mu boole leen wut leen a wut seenub sëriñ moo gën di fooka wut njariñ ab sëriñ ay joxe njariñ tey ak ëllëg nde du laneen ku muñ te sakku sab sëriñ te bañ a wut lenn njariñ léegi nga gis lépp njariñ jóg di la wut laxasu leen koo xam ni kii lu dee fi wut lépp dalaa mujj di wut loo soxla am te doo ko wut am leen ni itte yeewu leen ku bëgg a mucc jariñu day loru ngir ku jariñu loru na door a jariñu ak dëgg ngi te na leen